Assalamualaikum mbokk yi ñu ngi rafetlu seen ànd ak seen télévision Kaolack TV daleen ak jàmm ci xibaar yi la ci gën a fës na ca scrutin bi nga xamante rek daal nañu koy door mujj rek palu mu njiitum réew ci loolee sax ñuy xamle ni fixé nañu ko nag ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum ñaari junni ñaar fukk ak ñeent ci kàddu yi nga xamante rek moom moo jëw nañ bi ñu dénk wàllum gi gouverneur bu Kaolack da doon amal ab ndaje nag ngir lu jëm ci wàccaayu ziara leew na ñaseen bi ci loolee sax ñuy xamle ni dinañu ko am amal la ñeenti fan ci weeru mars atum ñaari junni ñaar fukk ak ñett ba tey dinañu teewlu gouverneur bu Kaolack ay kàddoom ci yile xibaar benn fan ci weeru mars nag la ñu nar a jëmmal dogal bi nga xamante ni jël nañu ko rek muy xamle ni ah, télé bu nekk fii ci ah, Sénégal rek di nga fay ñetti million loolee nak nekk li nga xamante rek impôt la weer bu jot ci ah, kanamu ki nga xamante rek moom moo di njiital Sénéra di Babacar Diagne ñaar lu pàcc gi xibaar bi ci réew la ñu koy jagleel dinañu ko ndar keppeeg li gën a ci xibaaru tàggat yaram nis tuut bi daanu ñu dugg yéen ci yàggal gi ak faram fàcce gi junjee woon ci bopp xibaar yi palum njiitum réew atum ñaari junni ñaar fukk ak ñeent scrutin ba daal ñu koy fixé ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février atum ñaari junni ñaar fukk ak ñeent loolee sax mi ngi nekk yëgle boo xamante ni nag jëwriñ bi ñu dénk kaaraange biir lay moom ma ko xamle ñu daal koy dëxëñ nag ci mille décret 2023 339 tey ji ñu fukki fan ak juróom benn ci weeru février gouverneur bu Dakar da doon amal ab ndaje rek ngir lu jëm ci wàccaayu ziyaara Léona Niassène ci loolee sax mi xam le namu nañ ko amal ñeenti fan nag ci weeru mars moom nag toogoon na ak chef service ak ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo yoroon wàllu organisation bi seen bëgg-bëgg rek di ziyaara boobee di jaar ci yoon gouverneur bu ay ci micro bu réunion bi dañ ko organiser parce que ziyaara Léona Niassène bi nga dañ ko prévoir le samedi 4 mars 2023 bokk na si xew-xewu diine yu gën a màgg si région bi <clears throat> yu gën a màgg si Sénégal encore laay wax ba tax na su dee jege dañuy ñëw seet si comité d'organisation bi nga xamante ni xalif bi teg na ko bi si euh, njiitalu porte-parole sëñ Ahmed Babacar ñu taataan ñoom li nga xamante ni ñoo ngi koy xaar si administration si wàllu gunge si wàllu ndimbal suñ ko taataanee chef de service bu nekk indi ay tontu. par rapport ak liñ ko laaj ñu xool liñ si mën a def li nga xamante ni jàppandi na si région bi ñu engagé aussi li nga xamante ni day laaj waa dakaar suñu kilifa yi nekk dakaar gu gunge ñu si ñu yëgal ko kilifa yi rapidement ñu jàppale ñu si taxaw ñu si mais jàpp nañ si si lu bëri ne si région bi déjà war nañ ko mën a jël en charge am na yoo xamante ne également foog mu yéeg si niveau dakaar lu mel ni wàllu ceeb bi donc euh, day yoo xamante ni nekk si suñu loxo mais comme ni ñu ko waxee comité d'organisation bi dinañ def demande préciser leen bëgg si ay quantité ñu jottali ko autorité yi nekk Dakar ñu fexe ba satisfaire demande yi. je que leen fi taataan comme ay tontu si wàllu chef de service si dalal na suñu xel bu baax. moo tax lu mel ni jëmi daaw si ziar bi ñoo ngi indi ñaari téeméeri élément ak juróom fukk mais ren dinañ si yokkaat yeneen téeméer muy ñetti téeméer ak juróom fukk gendarmerie fàtt naa ko sànq également si wàllu axe yi nga xamante ni day. jëm fii si na Léona seen également dañ koy jalonné taxaw si toujours si wàllu sécurité également les sapeurs pompiers toll si juróom fukk dinañ ko mobiliser indi ko na Léona seen lépp rek nga xamante ni dafa war a taalal ziara bi mu déroulé wu si jàmm. benn fan ci weeru commence nag atum ñaari junni ñaar fukk ak ñett nag la ñu nar a jëmmal dogal bi nga xamante ni mooy xam ne ni rek képp ku yor télé ci Sénégal di nga di fay nag weer bu jot ñetti million ci suñuy koppar li nga xamante rek moom moo di impôt démb nag ko doon xaatim ci teewaay nga xamante rek moo di Sénéra di Babacar Diagne ay kàddoom ci micro bu wala sax ci reportage bu RTS. kon aussi wala anam yi nga xamante ni foofu la jaar ngir ngir mën a wàccoo ak opérateur bi di télédiffusion du Sénégal ñu gën kaa xam ci TDS SA mboolem liggéeykat yi mbir mi soxal nag ñoo nga fa woon ci supervision bu conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA ni ñu koy fayee mooy xam nga tey euh, képp ku taal sa télé bëgg nga mu tàkk te bu tàkkee itam bëgg nga fa gis dara mu mel ni bon ñun au quotidien la ñuy assurer euh, maanaam li nga xam ne mission de service public donc mënutuñ mënutuñ xaar tam ba at jot maanaam at ba at ñu jot li nga xamanteni tay mom moy droit de diffusion yoy euh, da fay firndeel ne bonne at ba at lañuy def maintenance da fay firndeel ne aussi suñu matériel daf ñu wóor ne du pantax xam nga mbiri technique euh, mo ni démé donc ñun il faut ñu nekk ci prévision il faut ñu nekk aussi ci planification lolu motax euh ñetti millions yi euh weer ak weer ba weer la. li nga xamni war nañ ka fay nak japp nañ ni weer wu nekk lay doon koppar gogo ñuy fay di droit de diffusion. moy tax kër gi di TDS mën na def liggéeyam ni mu waree TNT maanaam dafa am euh, loo xamante ne nii euh, daf ñu war euh, ci wàllu matériel bu ñuy jënd ci wàllu matériel bu ñu yaxanal ñu koy tuddee maintenance mais aussi ci wàllu xarala yi nga xamante ne nii mu mel ni bande passante fibre optique yi nga xamante ni yooyu kenn mayuñu ko Euh, sëgëm kenn mayuñu ko nag euh, faaw ñi nga xamante ni itam ñoom la ñuy liggéeyal euh, mooy d'abord population yi. ñu wax tamit ne ñetti millions yi nga xam ne moom la ñu fixé tombé ci d'accord ci li nga xam ne moom la ñu war a fay te ñu fàttali ne à compter du premier mars la ñu ne maanaam dañu war a bind xaatim ne ñoom d'accord nañu ci fay loolu ñu fàttali ne loolu du sax investissement maanaam TDS boolewu ci sax matériel bi muy jënd. nguur gi nag fas yéene na jëmal li nga xamante ni mooy équité territoriale. Sénégal ci boppam moo jël en charge fonctionnement wu infrastructure bi que TDS mën a fonctionner ça fait déjà des années bu ñu xoolee ci réew yi ñu wër ñoom fixé nañ ay montant yu ëpp ñun yu ñu fixé mais ministre bi ne nañu waxtaan ba juboo pour que fexe maintenant ñu définir ay tarifs tarifs yoo xam ne régulateur bi rôle mooy daf koy valider heureusement que waxtaan nañu ak éditeurs yi ñoom ñëpp nangu nañ ko mais effectivement ne fixé nañ maintenant ci 3 millions par mois et par chaîne de télévision. yeneen ndaje daañu ko amalaat bu ko defee ñu mën a tëral anam yi ñuy fay koppar googu li war a toll ci ñetti millions ci suñu xaalis. suba ci aljuma ji fukki fan ak juróom-ñaar la ñuy amal màggalu Kazu Rajab ci loolee tax na sax rédaction bu Kaolack TV def ci ab yaatal bu am solo kan mooy Serigne Fallou dundam ak li nga xamante ni moom moo di jaar jaaram yaatal bi suñu ndaw la ñu ci yàndal. bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi Cheikh Fallou Mbacké turam ñu gën koo xam nag ci Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké di ñaar lu doom ci Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul yaayam soxna Awa Bousso nekkon ko xamante ni fay bi mu bokkoon imam yu bëri nag fekk nañu fa baax fii ca Touba Fallou Mbacké ñu gën koo xam ci Cheikh Mouhamadou Fadal mu gàlle si àdduna 1888 foofee ca Touba ca Daaru Salaam mu door njàngum alxuraanam nag ci kanamu Serigne Dame Abdourahmane Lo ci kookee sax la mokkare alxuraan ginnaaw gi nag la jàng jëm ci wàllu théologie ci ki nga xamante ni rek moo di nijaayam ji di Mame Mor Diarra Mbacké ñu ñëw mu jeexalee njàngam jëm ci xam-xam ci kanamu magam ji di Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké ci loolee sax mu def fekk bàyyi fa nga xamante moo mu daal di dem aji ji màkkatal mu àggali bëgg-bëgg yi nga xamante ni atum 1945 ginnaaw bi nga xamante ni nag magam nekkoon koo xamante ni ko oyofoon la woon neexoon a jot lool waaye tamit bëri woon nuñ koy gis lool mu doon dox diggante ak ñi nga xamante nii rek mooy di yeneen tarixa yi ku ci mel ni nag digganteem ak waa Medina Baye rawatina bay Niass digganteem ak Léopold Sédar Senghor nekkoon ci njiitu réew bu Sénégal nga taxoon loolu taxoon sax na sëñ Fallou Mbacké ñu doon ko ràññee ci nga xamante ni rek moo doon noon sëriñu mu daal di génn àdduna juróom-benni fan ci weeru août atum 1968 te Touba moom moomee sax ki ko wutu woon ci xilaafa gi rek moo doonoon Cheikh Abdou di murit yi loolee sax màggalub Kazu Rajab rek nekk wi dañuy daal jógee fii ay gox yu fasantikoo dem amali li nga xamante ni rek moo di màggal ji màggal gi foofee ca Touba la jaag may ya axar baax yàllaaw Eh, eh, ma jooy Fallou ma silla ñang la dem wàccaayu 43e édition mu di appelu maam li yi max di yu namu nañu ko amal ñaar fukki fan benn jàpp ñaar fukki fan ak ñaar ci atum ñaari junni ñaar fukk ak ñett ci loolee nag namm nañu faa waxtaanee lu jëm ci wàllum jàmm ak lépp loo xamante ni rek jàngale maam yu Laay Mahdi lu la ñu teewlu li nga xamante ni moo di yaatal bu ci Mandiaye Sow def Seydina Limaamu Laay almahdiyu ña ngeen koo xamee ci turu Seydina Limaamu Laay moomee nga xam ni moo taxawal lii di tariixa laayeen ci atum 1883 fekk mu am ñeent fukk at ci la njëkk woote woote mahdiyu moom mile le bind na ab téere boo xam ni ci juróomi pàcc lañu ko dëxëñ ci loole doon na sàkku ci taalibe yi ngir ñu bay lépp lu jëm ci puukare te sax ci jaamu yàlla loole tax na zikar yi ñuy faral di gis mu di ci ay njàngale di yu Seydina Limaamu Laay dëkkee di fàttaliku yàlla ak yonente bi ñii di ay taalibeem di sàkku ci ñoom ñu bëggante seen biir loole bokk na ci ndono yi mu fi bàyyi lu ci mel ni xabru maam Limaamu lay ak teen bi ñu gas ca booru géej ga teg ci jàngal na ay taalibeem oyof ba duñu xàmmee ku am ak ku ñàkk yére yu weex yi ñu tàmm di sol mooy firndeel xam-xam bu xóot ba ci téeméer ak ñeent fukk ak ñetteelu édition émission bi jàmm lañu nara waxtaane ak nyanggale Seydina Limaamu Laay almahdiyu diggante Cambérène jàpp Ngor ba Yoof nekk ay bërëb yu taalibe faral di dal ngir sàkku ay ñaan démb fukki fan ak juróom nag la ñu doon amal màggalub bés bi nga xamante ni moom la ñu jagleel cancer ci tout tànk ci loolee nag Sénégal bëgg-bëggam rek moo di xeex jàngoro joojee ba noppi rek bu ñu faju fay dara yaatal bi suñu ndaw ci bés bu am solo la si tout temps nga fekk na hôpital si service bi nga fait dañ fay topoto xalé yi am cancer association yu nañ fa association Tidiane nga na fa ay programme yu am solo ngir xalé yi dund fa euh, pour euh, nek ak xalé yi yu yi defal ay activité ay peinture Euh, coloriage ak yëpp après dañ leen di indi añ comme ça ñu mën a barkeelu ñoom ak parent yi pour jéem a ñu jéem leen tëfal tuuti ci feebar bi parce que ñëpp xam nañ feebaru cancer dafa metti ci xale. lu daje fa ak ñu naan Abdou Ndaw di meeru Malem Oda moom nag dafa ànd ak benn xale bi nga xam ne dafa ànd ak yaayam mu fat leen euh, këram ngir mu mën leen jàppale si li nga xam ne mooy faj bi ndax ki nga xam ne dafa feebar. moom ak yaayam ñu ngi jógee ba Malem Oda te xamuñu kenn fii si Ndakaaru feebar bi dafay laaj xaalis bu baree baree bari ci kaw loolu ñu ngi ñaan koo xam ne dem nga ba sa yaramu doom wala yow sa yaram personnellement nga santi ci lu mel noonu nga njëkk a teel a dem ci docteur yi au moins ci structure sanitaire yi ñu mën la orienté su ko defee feebar bi bu yegsee ca waxtu wam war a yegsi faj gi métti na mais dana gën a yomb su fekkee ne da nga continuer di ko demaale ba ci kanam mën na indi ay saafara si li nga xam ne mooy jafe-jafe yi xam ne waa kër yi wala waajur yi ñu ngi koy daj si feebaru cancer bi la waaye leneen tamit ñu ngi koy def muy mbirum formation ndax li nga xam ne mooy personnel bi war nañ yokk seen xam-xam si mbirum feebaru cancer ngir xale yi bu nu nekkatee si dëkk dëkkaan yi ñu mën leen teel a référé fii si Ndakaaru. si benn unité bi nga xam ne ci lañ jël charge cancer de l'enfant fii si Sénégal. dina recevoir lu mu néew néew ñaar ñaar euh, téeméer ba ñaar téeméer ak juróom fukk xale yu am cancer yu bees ci at bi donc xam nga loolu lim bu takku la surtout soo xoolee ne ñun suñu population population bu jeune la. li ñuy wax mbirum gratuité chimiothérapie euh, li nga xam ne mooy Lisca mu ngi siy liggéey ndax bëgg na li ñu def gratuité chimiothérapie si jigéen ñi. maanaam li nga xam ne mooy cancer jigéen yi ñu dem ba fayatuñu ñu bëgg tamit président de la république gëstu xale yi ngir ñoom tamit li nga xam ne mooy seeni feebar ci mbirum cancer ñu mën leen ko dimbali jàppale euh, seeni waajur ngir ñoom tamit du ko fayati. mais déglu nañ leen am na li nga xam ne LISCA dina leen bunge mais li ñuy ñaan nag euh, président de la république état du Sénégal le gouvernement. ñu gën a def seen doole gën a bunge xale yi nga xam ne ne suñu euh, amee cancer ñu mun leen faj gratuitement. te yaakaar na ne bu si leta duggale loxoom LISCA bon volonté société civile association yi nga xam ne dañuy xeex cancer yëpp ak waa kër docteur yi euh, yaakaar nañ leen fii ak euh, weer wala ay fan yu néew bu soobee yàlla canceru xale yi dinañ dem ba képp ku amati feebar bi dootoo xalaat. wala gisati xale bu faatu ci mbirum cancer. ginnaaw ay at nag ñu nekk ci euh, lëndëm dëkk bii di Taïba Ndioufène bokk ci département bu Koungheul région bu Fatick daal ñuy daloo démb ab centre électrique boo xamante nii rek 45 mégawatt la nag ci ndimbalu ASOR di ab kuréel goo xamante ni ah, fii la fekk baax nag ñoom ñooñu sax ñooy wàllu électricité rurale ci loolee sax ñu daal di daloo li ni mel ab point de presse la doon amal moom agent municipal bi di aleloo li ni mel nag ab jàppante da caa amoon ginnaaw bi nga xamante ni nag police ñëw na daal nañu jàpp coordinateur police municipal boobee ñu teewlu ay kàddu yi aleloo di liggéeykat ci municipal bi ci micro bu Pape Meyssa Diop. ndaje bi ndaje dara waralu ko lu dul politique ma nekk si li liggéey si mairie bi ñu bugg taxaw bugg maa dàq bugg a bi yëpp mooy lan mooy tey mooy dama ànd ñoom di nekk ak ñoom di eh, ba élection locale ma ànd ak Serigne ba Serigne bu gagné xeex la ko lépp lu ma mun ak lu ma munul xeex la ko boo yàlla dogal mu gagné mu affecté ma cabinet ma nekk si kaw su ma ñëwee na ma jàmbaar jaa ngi nii di ma tatagal di ma di ma nu ma war a ma dama ànd ak Mouhamed Ndiaye Rahma mu taxaw mu ne kudd dina ma taxaw dina ma ay weer si ginnaaw a ngi nii proposé ma xaalis bu bëri proposé Assane activité Assane ñëwaat àndaat ak moom ñoom ñoom ñu taxaw ah, Assane ñëw waaw ñu taxaw tey ji ñu taxaw indi benn poste ba benn kayit boo xam ne na abandonné poste abandonné poste si lan man lan lañ may abandonné poste ñu ne rapport bi kan moo ko def ñu ne Pape Sabité Pape Sabité bu fi mën a am saa na Sonacos si liggéey ban dafa ko rapport mu ñëwee fii si maire bi moom lañ jëkkër moo nekk nekk di suruus maa ngi wax si alxuraan karim bu ma yaakaar alxuraan bi maa ngi ko jël téyeeku mu ngi nii karim suñuy waxee ne abandonné poste fekkee du ma xëy si yàlla naa torox parce que yónni Muhammad maa ngi xëy si lii ñu taxaw maa dàq dara lal ko lu dul maa ngi xëy si di wàcc heure li ñuy def def def ko dëgg defoon a tax ñu bëgg maa dàq parce que dama àndoon ñoom antuma ak ñoom Mouhamed Ndiaye ñu dina faagal ak vidéo yi nga xam dama koy wane jafe-jafe yi nga xam dama koy wane si dëkk bi di woné di woné mbalit di woné inondation yi ak yoy nonu momu mu nekk mais xam ne lu wax tak dëgg parce que dem boo ñaa jël suñ millions jël ko dugal ko ci fikaa bi tegoon ko fenn ci lo xam ne teg nañ ko si dëgg Pawsal bi tey ñu jox ko jox ko ay volontaire mu jël 20 volontaire déclaré 15 volontaire mais ni Kaolack bii lu fi nekk si ay nit ñoo xam ne duñ xëy si mun naa bugguma parce que sama ay collègue neen waaye ëpp na ñaar fukki nit yo xam ne duñ xëy heure duñu wàcc heure ñoo xam duñu sax ñëw ñii ay gaz mécanicien lañ yore ñii ay place lañ yore ñii leen lañ yore te ñu ngi fii te kenn dàqu leen ak ay commerçant ak lépp ak yeneen ak yeneen man lu tax ñu bëgg maa dàq mooy mooy Mouhamed Ndiaye wax ma bu ma àndal mais du mbiri politique mais du mbiri politique sëñ sëñ boobu nag xam ne ndayam moomul mairie bi baayam moomul mairie bi mairie bi du da alalam daf maa ñëw fekk ma si mairie bi bëgg a taxaw bëgg maa faagagal si lan yegg si nañ ci ñaarlu pàcc gi xibaar bi ci réew la ñu koy dooree Assa Diagne la ñu cee àndal. xibaar bitim réew yi daañu koy dooree ak réew bu Bénin ginnaaw takk deru municipal bu Kobli ak bu Matéri ñoom ñaari dëkk yooyee féete ci bët gànnaaru réew bi ak ca frontière bu Bénin bu Togo ak bu Burkina Faso daañu xaatima ngir dakkal dem beeg dikk bu moto yi ginnaaw bu vingt h jotee jàpp 6 ci suba mu nekk bërëb yoo xam ne takk der yi ñoo nga kay saytu. kuréel gi ëmb tukki bu jaarul ci yoon génn nañ ab bataaxal ci àllarba ji yemoo ak fukki fan ak juróom ñuy xamle ne juróom-ñaar ci ñoom ñi nga xam ne ñooy dund ñu ngi leen hospitalisé jamono ji ginnaaw bi seen bato bi suuxee waaye it fukki néew ak benn kuréel bi nga xam ne moom la ñuy woowee Croix-Rouge foofee ca libi ak takk der yi nekk ca dëkk ba gis nañu leen. foofee ca Tunisie ñu ngay wéy di amal a jàpp ya ginnaaw ko fa nekkoon magistrat ay njiitu parti politique ci week-end bi wala sax njiitu rajo bi nga xam ne moom lañ gën di déglu ca dëkk ba teg nañ ko loxo ci altine ji si ngoon ki nga xam ni moo nekkoon député moom it teg nañ ko loxo ci talaata bi si ngoon jafe-jafe yooyee moo waral njiitu réew bi di kay sayt génn àddu ci jàpp gi ñu amal ci ñenn ñi kàddu yooyee nekk lu nit yi doon xaar uh, ci moom. jaajëfal ko moom Asta Diagne ci xibaaru biti réew yooyee xibaaru tàggat yaram lañu koy ndar keppe Assane Thiam lañu ciy àndal. gannaaw lu am solo li mu defoon ci coupe du monde bi la weesu Maroc egg fu équipe africaine mësta egg bi la jaroore sax bokk ci lu tax mu war a amal ab jongante xarito ak équipe bu Brésil mi nga mi nga xam ne moo ëpp ay coupe du monde ci tarixu football. dibeer gi la weesu jee doon jàkkaarloo ak bërekat bii di Tapha Tine làmb joojee sax dal di jeex gannaaw ab gaañu gaañu bu bee 52 moomee sax daal dina si dellu si di leeral ni yoxu conc bi dafa am ab fell fell xibaaru tàggat yaram yi dañ koy daal di nar keppe ak Ligue des champions footballkat bi di Karim Adeyemi ay atam tollu ci fukk ak juróom-ñett doomu Allemagne boobee dafa ti jaloore jaarale ko ci apo bi bu kenn mësul gis wala sax bu nakaree gis lool. njal apaax déggéen sekk xibaaru tàggat yaram yooyu sax mooy mook fu ñu yëkkatee jotaayu xibaar yi dig leen daje Alassane Gaye dina fi jaar ci xibaar yi ci kàllaamay nasaraan laata loolu nag des leen seetaan suñuy programme ci Kaolack TV jaajëfal équipe rédaction bi jàpp ci xibaar bi mu yemb jaajëfal Baye Mor ak équipe am waaye tamit di leen jox dig daje rek bu subaak jàmm jàmm ak jàmm